gan ma ma Mbodj Diouf bokk ci bureau politique bu parti socialiste ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu mi FM. soxna Fatou maa ngi lay nuyu di gërëm yow aussi. di profiter aussi pour nuyu auditeurs yu Rewmi FM yëpp. Mhm, jërëjëf ñu ngi lay fay alors euh, parti socialiste daje alxamis euh, secrétariat exécutif national bi ngeen doon waxtaanee ñàkkul dogal bi président Macky Sall euh, jël ne du bokk ci élection présidentielle bi ñu dëkkmal waaye itam tolluwaay réew mi ci wàllu politique ak ëllëgam lan moo génnee ci booba ndaje. merci soxla soxna Fatou li ma mën a wax effectivement pour dëggal ko mooy effectivement parti socialiste. convoqué nañ suñu secrétariat exécutif national alxames bi passé pour euh, mën a àddu ci actualité politique bi et particulièrement ci déclaration bi président Macky Sall def euh, di déclaration boo xamante ne effectivement secrétariat exécutif national bi rafetlu na ko bu baax euh, vraiment gërëm na jaajëfe na président ci décision historique boobu nga xamante ne jël na ko te mu doon loo xamante ne en tout cas Sénégal yëpp ak euh, même doonaan adduna àdduna bi yëpp jëlee ci am ci mbég mbégte bu bëree bari mu doon surprise bu agréable boo xamante ne voilà il fallait que ñun aussi ñu marqué le pas pour wane ne vraiment euh, lu ñu euh, xaaroon la donc vraiment am ci mbégte. lu ngeen xaaroon kon bettu leen. bon en fait su ma nee su ma nee lu ñu xaaroon mooy. dès lors que c'est une décision d'apaisement maanaam loo xamante ne en tout cas day fànq lépp luy tension di en tout cas par rapport ak problème yi nga xamante ne moo fi amoon euh, ci jamono yi weesu mm. manifestation gi yooyu donc mënuñu def lu dul rafetlu ko mais may préciser que ne rek euh, comité central aussi euh, suy réuniro da di day waaj day waajal réunion bureau politique parce que bureau politique biir parti socialiste mooy jël décision bi euh, secrétariat exécutif national comme am na un événement bu xew ci actualité politique bi ñu réuniru euh, waxtaan seen i biir càmbar ko maintenant génn ay conclusion yoo xamante ne ñoom ñooy préparer réunion bureau politique bureau politique maintenant mooy décider hmm. ci position bi parti socialiste war a jël donc ma naan rek euh, it li li ci amoon solo mooy que ñoom ñu constaté que effectivement président de la république doon candidat et que euh, déjà ñu commencé lancer euh, disque de débat yi ci biir PS maanaam ci wàllum ban taxawaay. réparti bi war a am pour élection deux mille vingt quatre yi di ñëw. Hmm. alors est-ce que président Macky Sall tamit euh, xëccu leen ba ci cat gi mu wàcc leen fa ndax sept mois moo des ci élection yi euh, bi ngeen déggee ne moom du bokk est-ce que newu leen ndax ñun dinañ am temps wala daal yëf yi jàmp lool ci yéen. bon man foog naa ne résultat bi daal moo ci am solo euh, comme xëy na lu ñu tënkoon la ñun ñëpp parce que en tant que njiitu coalition bi. foog naa ne kaw kan troisième mandat boobu ou troisième candidature bi te di loo xam ne dafa lëmbee woon. Mhm. mais ñun mënuñ ci woon àddu ndax daf ñu ñaanoon ne comme moom sas dañ euh, euh, réew mi dañ ko sas mu doxal euh, mu doxal koom bi koomu réew mi. mënuñu mënu mënul woon nangu ñu teg benn débat boo xamante ne xëy na mënoon na tënk doxalin boobu. Mhm. donc loolu bi ñu ko ñaanee depuis presque après élection 2017 ñu mayoon ko ko kenn mënu ci woon wax kenn mënu ci woon addu kenn mënoon afficher ambition. Mm. donc su demee ba tey mu prononcé wu man je crois que li li am solo. mooy déjà décision historique boobu nga xamante ne posé nag muy wàllum muy loo xamante gën a renforcer démocratie Sénégal di gën a positionner euh, réewum Sénégal en tout cas ci réew yi nga xam ñoo gën a démocratique ci àdduna bi donc je crois que loolu moo jar a euh, retenir maintenant li ci topp mooy des na sept mois des na six mois. li ci am solo mooy ñun en tant que coalition en tant que parti membre de la coalition ñu dellu suñuy parti euh, waxtaanee ko xool maintenant ban taxawaay lañ war a mën a am par rapport ak décision boobu wax nañ ko félicité nañ ko maintenant par rapport ak échéance yi nga xamante ne dañuy day day day day moom lañ jubal ci jub jublu aussi ñun ñu xool ban taxawaay lañ ci am te foofu aussi foog naa ne euh, liñ fa wax mooy juste constater ensuite euh, dëggal le fait que ñoo ngi toujours benn Benno Bokk Yaakaar parce que jusqu'à preuve du contraire euh, leneen amu fi. parti socialiste génnagul benn Bokk Yaakaar ñoo ngi biir benn Bokk Yaakaar donc dañu dëggal suñu nakkin boobu ci biir Benno Bokk Yaakaar. loolu nag jotewul dara ak suñu candidature bu 2024. Hmm. da ngeen di samp candidat. Euh, foog naa ne du man maay maa koy wax mais mën naa jox suma xalaat suma xalaat mooy ñun ñu am candidat. Hmm. candidat boobu nag mën nañ ko am ci biir parti socialiste. comme nee nañ deux mille dix neuf dañu jàppale woon président Macky Sall pour mu fo pour mu faluwaat loolu antu na euh, dafa jot que ñun ñun ñu mën a am suñu candidat biir parti socialiste soit mu doon un candidat social wala candidat wu coalition. dàqul aussi mu doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar parce que comme ànd bi rafet na euh, depuis 2012 ba léegi APR jël na ben mën nañ jàpp ne par jot na parti socialiste aussi euh, jot wala jël candidat bi. bu benn bokk yaakaar ñu choisir ko biir parti socialiste te naa ne am nañ kàngam yi am nañ leadership bi e je crois que nekkin bi rafet bi ñu nekkoon ak euh, euh, président de la république ci biir coalition bi xëy na loolu mën na tax ñun ñoom prétention boobu mais toujours est-il que loolu yëpp li ci am solo du candidat bi mais surtout nañ koy defee ak nañ koy tànnee su fekkee ne dañu décider ne candidat bi biir bennoo lay doon. Hmm. su fekkee ne waxtaanee nañ ko loolu war na mën a nekk parce que mënuñu ko dàq. mais toujours et il que man dama jàpp ne candidat bennoo war na mën a doon un candidat socialiste. waaye socialiste su fekkee ne loolu antuwul. Hmm. ñun mën nañ suñu biir parti socialiste aussi suñ ko waxtaanee ba mu antu mais ñu tànn suñu candidat euh, suñu demee ba ci capandong ba élection deuxième tour la ñu defoon te mu jigoon yi en 2012 maanaam candidat majorité bi yëpp. jàppale candidat bi nga xamante ne mooy gën a positionné te nekk ci biir majorité bi. noonu lañu defoon 2012 ba président Macky Sall falu euh, ñu wàccee président Abdoulaye Wade donc loolu aussi mën nañ ko defaat. ci cadre candidature multiple. Hmm. donc loolu laa wax man. d'accord alors euh, coowal euh, candidat boobu nag ñu ne tàmbali naa yëngal euh, seen parti PS ndax xiiroo gee ngaayoo gaa ngi mel ni tulleeg maa léegi tey sax ngeen tasaaroo am nañu wax loola. lu fa xew dëgg parti bu mag bu nekk nag euh, foog naa ne foog muy dund euh, occasion yu mel nii c'est-à-dire situation yoo xam ne coow bi day bari. Mm. mais pas ñu dem ba mu mën a tas parti bi wala de foog naa parti ba parti parti bu judd en 1948 euh, Senghor jaar fii Abdou Diouf jaar fii Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm jaar fii foog naa ne du looloo ko mën a tas coow li mën na bari waxtaan bi mën na xóot trop. mais toujours est-il que li ci ëpp solo mooy loolu yëpp démocratie la rek euh, lu ñuy waxtaanee la ci càppanong ba li ci am solo mooy décision décision bi ñuy war a jël mooy mu doon décision boo xam ne majorité wu sociale yi yëpp moom la ñu bëgg. te ñu def ko ci anam yoo xamante ne en tout cas euh, démocratique na mais surtout transparent na ma je pense que loolu ci am solo. Mm, nee nañu PS dafa xar ñaar ñiy ànd ak Aminata Mbengue Ndiaye ñiy ànd ak Serigne Mbaye Thiam. Euh, non loolu kan ci ñooña ñaar ngeen yaakaar ne war na mën a doon. bon loolu loolu man gëwuma ko gëwuma ne PS euh, dafa xar amul clan PS. Mm. Euh, secrétaire général bi mooy am Aminata Mbengue Ndiaye moo fi wuutu Tanor Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm comme intérimaire et que ci loolu la ñuy dox ba ba ñuy yegg ci congrès bii di ñëw Serigne Mbaye Thiam c'est un leader confirmé. Euh, ñëpp yaakaar rek en tout cas une grande majorité militant yi yaakaar ne war na mën a doon le candidat du parti donc euh, foog naa ne militant yi aussi ñoo ngi ciy dox di ci wax. Hmm. mais amul dualité. amul tendance biir parti socialiste. Ah, loolu nañ ko jàpp am na ñuy xeex am na ñuy xeex ñu ne Aminata Mbengue Ndiaye jàpp ne dafa war a dem. waaw bon du ma ne dafa war a dem parce que Aminata Mbengue Ndiaye euh, bon jàpp naa ne dara ñaawagu fii. Euh, téena partie bi yàgg na ci biir parti bi yàgg na doon présidente des femmes socialistes am parcours boo xamante ne macha allah bon li ñenn ñi di wax rek ci li ma dégg mooy que ne Aminata Mbengue Ndiaye mënul warul mën a def lu yées li Macky Sall def. Hmm. Macky Sall dafa poser un acte symbolique historique très fort. Aminata Mbengue Ndiaye aussi par rapport à son parcours ak li mu def yëpp moom dafa war a li tubaab naan dafa war a sortir par la grande porte foofu lañ koy xaar. parce que nag euh, voilà foog naa ne euh, soo defee soo dundee yenn at yi ci biir parti bi euh, def fi lépp lépp rafet fexeel ba sooy génn rek nga génn génnin bi gën a rafet te ñun lool lañ koy ñaanal ñëpp parce que suñu yaay la li ñuy ñaan mooy que congrès extraordinaire bi ñu mën ko def dans les plus brefs délais parce que taxul mu compliqué mm. comme renouvellement pour ñu dem congrès ordinaire dafa compliqué parce que jaay carte la yooyu am nañ possibilité am na benn raccourci pour ñu def un congrès extraordinaire. Hmm. li mu laajte lan la mooy ci 138 coordination yi nga xamante ne moom la parti socialiste am euh, xaaj bi ak benn coordination suñu bindee ne dañu bëgg congrès extraordinaire am rek day am maanaam muy 69 plus 1 muy 70 donc 70 coordination yi nekk biir Sénégal suñu bindoon. dañu bëgg parti socialiste dem congrès extraordinaire dañ dem congrès extraordinaire. Mm. ñu tànn un secrétaire général bu bees xëy na moom mooy dooni suñu candidat loolu xaj na fii mën na nekk. Mm. ci kaw rek euh, volonté bi am te gëm naa ne Aminata Mbengue Ndiaye loolu ci yàqinam la ci bëgg-bëggam la ci volonté am la te foog naan incha allah dina ci dox leneen la mooy euh, c'est vrai que biir parti socialiste dàquñu kenn pour mu doon wala mu présenter candidature am mais toujours est-il que euh, voilà fi ñu toll je crois que baax na aussi ñu euh, càmbar ki nga xam ne moom moo war a doon suñu candidat. yéen da ngeen jàpp ne Serigne la bokk nga ci ñi ñuy wax ne euh, poulain wu Serigne Mbaye Thiam lañu ñooy xeex sax hmm. Aminata Mbengue Ndiaye. du man foog naa ne moom ci boppam nee na ne bëggul doon candidat loolu leer na PS yëpp xam nañ ko comme mënul doon candidat nag bëggul doon candidat euh, war nañ mën a xalaat kan moo war a mën a doon candidat à sa place. ku mel ni Serigne Mbaye Thiam kooku yaa ko waxal sa bopp <laughs> man waxuma ko et observateur yu bëri aussi gis nañ ne il en le profil am na compétence bi am na expérience gouvernementale parce que def na léegi presque euh, onze ans xaw ma douze ans ci gouvernement bi kooku euh, vraiment y a pas photo euh, ni tubaab di wax donc kooku suñ ko amee Euh, mënuñu ko mënuñu ko mënuñu gëwuma ne mën nañ am ku ko gën comme candidat pour deux mille vingt quatre. Mm. leneen la ca des maintenant parti bi moo ko war liggéey parti bi moo ko war a dox pour que loolu antu euh, que ñu def ko biir benn bokk yaakaar parce que autant Serigne Mbaye Thiam am na profil bi pour nekk candidat au parti socialiste donc ou coalition autant mën a nekk euh, am na profil bi pour doon candidat wu benn bokk yaakaar loolu aussi kenn naataablatu ko. Mm-hmm. la ca des maintenant il faut que ñun ñu gën a dëgëral suñu taxawaay. soit ci biir coalition bi wala ci biir landerneau politique bi te loolu c'est à travers nos décisions. Hmm. il faudrait pas que ñuy poser des actes wala des des des des décisions yoo xamante ne ci benn instance boo xam dina tax nit ñuy di douter ci ñun suñu ambition parce que muy parti di un homme politique soo demee ba amatoo ambition ça veut dire que dee nga. Hmm. te PS nag euh, vraiment avec li mu fi def yëpp. mënuñu toog di xalaat ne pendant deux élections successives mënuñu am candidat loolu euh, voilà man je pense que xel nanguwu ko. Hmm, kon daal mën nañu jàpp ne PS moom ak lu mën a doo xew dina am candidat alors Khalifa Sall candidat déclaré la ci élection présidentielle bi ñu dëkk mal tàllal na leen loxo te jamono yële déggoon nañ tam ñuy wax waxi retrouvailles socialiste est-ce que mun nañu xaar xëy na ngeen ngeen ba Khalifa Sall mu doon seen candidat bu ko defee yéen ñëpp ngeen ànd. dem bi ci élection bi. mais mais foog naa ne euh, kuy wàlli yaa ni dafa fekk sa kër tëggul sa sa tëggul parce que je pense que wax naa la ne on a un profil boo xamante ne ñëpp ñu ko ñëpp ñoo ñu ko ñëwee. am na expérience gouvernementale boo xamante ne Khalifa Sall boom ngay wax noonu xaaju ba xaajul ba koy am euh, son profil académique euh, lépp lépp lépp vraiment lu ñu mën a tiitaroo la Euh, je n'ai rien contre xalifa euh, Sall mais du militant socialiste doonatul un militant du parti socialiste. xanaa yéen jubóo bi ngeen di wax du dëgg ci yéen. retrouvaille socialiste non retrouvaille bi mën na nekk mais du ciblé wu ñu kenn à proprement parler euh, gauche plurielle la ñu wax PIT ngi ci LD ngi ci ñeneen ak ñeneen ñoo ngi ci xalifa Sall ak taxawu Dakaram di mouvement am aussi ñoo ngi ci mais dàquñu lenn mais li ma mën a wax mooy man suma xalaatu bopp. te je sais que aussi mooy xalaatu majorité wu militant yi mooy que ñun am nañ suñu mbëru bopp boo xamante ne mën nañ ko tiitaroo donc xalifa euh, Sall il a le droit ne dama bëgg PS jàppale ma comme ni ko Idrissa Seck bu réew mi mën a waxee wala beneen candidat déclaré ni mu ko mën a waxee kooku c'est son droit mm-hmm. mais toujours est-il que ñun effectivement ñoo ngi toujours dans la dynamique euh, d'un large rassemblement autour de la gauche plurielle mais terewul ñun am nañ ay mbër yoo xamante ne mën nañu leen euh, ngemb ñu dem représenter suñu candidature euh, avec toutes les chances possibles mm-hmm. aussi bien au sein du PPS avec sa coalition qu'au niveau de Benno Bokk Yaakaar donc je pense que loolu naatable ma Mamadou Mbodj Diouf amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey ma fàttali yaa ngi bokk ci bureau politique bu parti socialiste merci beaucoup